Euh, asalaamaaleykum euh, mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu tey euh, yemook ajjuma benn fan ci weeru septembre ñu ngi fii terrain ASC dajale pax mi doon assister match championnat entre ASC Baye Gaynde ak ASC Dias Palam ASC euh, Baye Gaynde moom moo gagné ASC Diass ci score un bi à 0 match bi nag euh, mën nañu wax ne ci première euh, mi-temps bi ASC Baye Gaynde amul woon gisul woon jeu am parce que jeu bi posé woon ASC Diass Palam moo nekkoon à l'attaque mais défense su ASC Baye Gaynde réussir na mu contenir. Euh, bon benn domination bu ndaw rek mën naa ne benn domination bu ndaw la woon parce que comme ASC Baye Gaynde dafa euh, tey moo nekkoon euh, première match am c'était normal que mu demee noonu ci côté ma ci deuxième mi bi juste ci début deuxième mi bi mën naa wax sax ci la ASC Baye Gaynde bu ñu commencé rek ñu nekk à l'attaque foofu la ñu amee benn cornel am benn bal cafouillage bal bi ba mu génnee ñu delloowaat ko mu dal ci euh, loxo défenseuru ASC euh, Dias Palam arbitre bi sifflé penalty ci noonu la ASC euh, Baye Gaynde dugalee bitam bi à travers le numéro 14 muy Thier moom moo dugal bitu ASC Baye Gaynde ñu ngi leen di jox dig daje suba ci samedi bi yemoo ko ñaari fan ci weeru septembre dinañ fa amal euh, ci cadre bi euh, ASC Thialpoy euh, moom mooy dalal ASC Birbiran ci wàllu cadre ci wàllu senior bi ASC Birbiran moom moo fay dalal ASC Maguitey toujours ci championnat bi boobu mooy doon cinquième journée championnat national ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah.